fanweeri dëkk ak ñaar dong ñoo mënoon am grade boobu dem ci coupe du monde ba ñu demee tam wane nañu ngóora wane pas-pas wane njàmbaar ba yàlla def ñu bokk si ñu génn ci match poule dem qualifié huitième de finale huitième de finale nag mooy fanweer ak ñaar yi demoon ñi ci ña fa yegg mooy fukk yi ak juróom-benn genn wàll gi donc tey Sénégal bokk na ci fukki équipe ak juróom-benn yi gën a jëm kanam ci àdduna bi waaw jëm kanam ci àdduna bi waaw léegi loolu bu ñu bu fekkee doy ñu lan moo ñu mën a doy dans le monde entier fukki équipe ak juróom-benn ñu lim ci Sénégal loolu doy na ndam parce que dam na coupe du monde dañoo xam ne processus la moom bu ñu naan ñu ngi koy xaar fii xam nañ ne loolu dañuy tendre vers loolu. dañ koy organiser liggéey la du ay wax wala toog rek naan il faut ñu andi coupe bi fii foo foo jaar bi andi ko dafa am processus Sénégal déjà processus moo tax ñu jëli coupe d'Afrique processus moo tax ñu qualifier wat pour une deuxième fois consécutive lii nekk ndam mooy troisième fois consécutive ñu demande mondial su boobaa nag ñu yegg minimum quart de finale nañ ko defee woon 2002 wala demi-finale comme tey jii Maroc mu ngi dem quart de finale maa profiter profité pour féliciter les lions de l'Atlas a buru Maroc léegi pour wan ko ne Maroc m'ont représenté tout l'espoir de l'Afrique kon ñu ngi leen di ñaanal ñu ngi leen di ñu ngi di ñaanal may leen ndam donc nous allons continuer liggéey bobo jàppalewaat leen te réew mi yëpp leen pour que d'abord Coupe d'Afrique bidinio, di ñëw ngeen mën a téye seen raaya maanaam gañewaat ko lu war a mën c'est à votre portée c'est à notre porte ci liggéeyaat rek euh, ñëpp jàpp si waaye ñu liggéeyaat pour parce que coupe du monde bële di ñëw tey lañ koy tàmbali doo xaar ba mu des at ngay jóg di kurti kurti non da ngay commencé jóg xool lan moo doxul ci campagne bi fan la ñu war a yokk liggéey lan la war a soigner yan aspect la defaraat ci ci ci équipe bi encadrement bi ci lépp ci administration su ko defee beneen yoon dañuy gën a jëm kanam mais nekk fi rek di di décourager loolu du tax nit jëm kanam kon nee naa gàcce gaynde yi la dem ngeen huitième de finale foofu la ñu yem ko nangu te waajal beneen yoon ñu dem huitième de finale loolu tax ma pour gën leen jàppale équipe bi di gërëm rawatina membre encadrement technique coach bi ak entraîneur médecin yi fédération président fédération maa remercier de parce que Sénégal amul benn problème bi mu Qatar amul gis nañu ko fa euh, ci liggéeyu fédération lolu aussi lu am solo la parce que souvent du lolu la ñuy gis Afrique kon ma ngi saluer esprit bi am sen diggante ak ministère des sports esprit bi am ci bir fédération bi ci biir comité fédéral ak ñëpp ñu nga xam ñu ngi ci yëngatu way nak war ngeen fexé ay jigéen di ci bokk aussi te loolu problème la benn jigéen moo ci bokk lolu lolu doyul donc bravo benn bi nga xam benn ñebe si cin mais da ngeen da ngay wut ay yeneen jigéen ñu dugg si fédération bi am bu ñu leen waree copte sax. ñu copte leen. voilà ñu copte leen quand même loolu mooy li li jaadu donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax dem leen nag ngeen noppalu le temps de reprendre euh, le football dans vos équipes mais surtout ngeen seetiwaat seen i mbokk euh, vraiment jotoon na voilà la fierté la fierté de chef d'État toujours euh, euh, attaché à son équipe qui croit encore en cette équipe euh, et les exhorte à aller de l'avant parce qu'il reste d'autres échéances effectivement. le président de la République qui a posé un acte fort, le maintien des primes de qualification. Un dernier acte Monsieur le Président. Donc, nous appelons les joueurs euh, pour euh, à venir donc euh, au pupitre pour immortaliser, faire une photo avec le, le, président de la République, une photo groupe, donc pour mettre un terme à cette cérémonie.